salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ci koor gi baax ak leen baal baax waaw comme ni nga ko waxee maa ngi tudd Arèmata Dampakha madame Camara di nekk nekk présidente association des femmes locales de Fann tey ngeen amal conférence bi comme ni nga ko waxee def ay deux ans macha allah daaw defuñu ko ren ñu def ko woo suñu kilifa yëpp ñu ñëw wuyu suñu ak ñu baax ñëpp ñu ngi yàlla macha allah. tey ngeen tànn thème bu am solo lu waral choix bi ngeen choisir thème bi. waa xam nga choix thème bi euh, c'est pas gratuit. Euh, dañ ko choisir parce que dañu gis ni que au sein des Fouta il y a pas de communication te communication moom mu amul rek. xam naa ne relations yi day xajam. jaamu seen borom surtout ñi nga xamante dañuy xëy suba di liggéey bàyyi suñu njaboot bàyyi suñu borom kër donc naa ne foofu waxtaan moo fa waral lalu ba nga xam ne euh, rapport yi nekk ci diggante waaye dencante yi mun tax loolu dafa jël ko ñaateel bi édition bii troisième édition troisième wa amicale bi je pense si ma mémoire est bonne amicale bi on doit faire maintenant 8 ans d'existence waaw 8 ans d'existence ndax am ngeen euh, yeneen activité yu ngeen di yëngu lu conférence waaw bien sûr parce que association boobu mu am euh, plan d'activité

tey jii conférence bi lañ def yàlla may fekkee ko yu bare bare bare incha don de sang lay doon. ak yeneen ak yeneen macha allah parce que plan d' activité bi mais dañu am